message bi may lancé dal mooy léegi rek ñoo jëm ci élection euh, nit ñi ñu ngi fëggante ay dënn gaay ku si nekk yaa ngi dem di fi ni nii yan yan yan yan yan yan garde corps laa war a am yan groupe bras laa war a am loolu lay ñaan yàlla ak yonent bi élection locale bu fekkee pour servir population rek la digg régler problème mu gox mais bu nañu fexe ba doomu gox bi duñ leen rey nañ ko def ci jàmm ku dee jox sa programme communal su les gars choisir mais le problème du Sénégal yow faut le finir. est-ce que dégg nga mère maire ci fii ñuy wax ci télé yi nga dégg kenn mu ni sama programme communal lii la su ma ñëwee Kër Massar mbaa ma dem Darou Ni la lay réglé mbalit ba nii lay réglé tel ni la compétence transfert yi la ma parce que dañ dul débattre Qu'est-ce télé ñuy def. bu on débattre man Thierno Lo bu ma dikkee les conférences transférées c'est tel parce que j'ai été ministre de l'environnement Comme naa bu baax.

réfléchir ci yu bëri mais nous n'avons plus des espaces yu ñu permettre ni waxtaan pour seet li gën ci askan wi ñu def ko xuloo ŋaayoo wut poste de tout le temps même avant campagne bi c'est ce que les Sénégalais vivent waaw avant ma jeexal nag ma professeur sax naroon naa ko kii ci occasion bi pour jaale Abdourahmane Ndiaye bi nga xam ne bi la perte nañ ko bërki démb kooku gis nga bu fekkoon président Macky Sall dana ko sentir sax xam naa dina ko sentir parce que xarit la amoon boo xam ne loyal rassembleur ku koy wax dëgg waaw koku. c'est pourquoi il était l'ami de tout le monde ki ñu bëgg ñu bëgg dëgg yëpp Abdourahmane Ndiaye wutul poste wutul dara c'est servir le président de la République donc man un compagnon un compagnon comme ça ce président Macky Sall bette wóor na ma wóor na yàlla ne tey le commettre. lu ko metti man mii tam am na lu metti parce que suma xarit la parce que mbedd mi bu dox Zidane xam mom moom rek moom doy woy Zidane fi ci biir Sénégal ci biir dëkk bi moom ko def à cause de l'affinité que nous avions waaw te bu ko émission bi permettre ma jox ben anecdote tok na benn jour ñu bugg ko jëli di temps de Abdoulaye Wade bi Macky Sall démé man mi mako wol wollu ñun ma wol Abdourahmane Ndiaye ba xam dina wara mëna mën a bàyyi Sall ñëw ci ñun sa xama sama xarit la xam naa boo ko dina ñëw moo woo mu ñëw sama kër gi man ko Abdourahmane pouvoir bi ma bok nee dañ la soxla pour nga bàyyi président Macky Sall mën ma Thierno yow da ngay sama xarit moo tax ma ñëw di la wuy si parce que xam naa ni yow doo ma wax dara loo xam ne lii du lu baax mais Thierno est-ce kër gi ma nekkoon dañ maa génne génne nañ ma ba président Macky Sall jox na ma 500000 francs pour que ma dem joxe 2 mois de location jamais au grand jamais buñ ma doon may kër gi ma génnee sax du tax ma bàyyi Macky Sall te boobu Macky Sall n'était pas encore président de la République donc ngor compagnonnage de loyauté et de fidélité amna nit et c'est des principes qui les guident durant toute leur vie et les gens qui m'accompagnent dans l'Alliance pour la paix et le développement nous sommes de ce moule-là